ngeen jëf euh, ñu ngi leen nuyuwaat di leen gërëm bu baax di ànd ak yéen ci 30 minutes chrono trent minutes chrono ñu fas yéene ci ànd ak yéen di gërëm baax Abdoulaye Diallo Abdou Top ak euh, Fallou ci régie bi ci solution info TV ñu fas yéene rek ànd ak yéen waxtaanee tey ji actualité bi bokk na ci communication bu Ousmane Sonko leen bëgg a jàngat ak communication gouvernement bi coup de bi ginnaaw coup cao bi. loolu mu laaj jàngat ñu bari nag di wax ci Ousmane Sonko diggante moom ak presse bi man ci sama jàngat ma am ci wuute ak ñu bari pour man presse bi danoo waroon a gën a fonk Ousmane Sonko parce que presse li koy doxal mooy nga am un bon client client boo xam ne information bi ngay jaay dala koy jaayale li nga nekk moom da koy doxal te Ousmane ko c'est un bon client un bon client mooy koo xam ne boo boo xëyee mun nga ci jaay say journal parce que boo ko tiitree wax ci moom mu baax mu bon nit ñi dinañ dem liir ko pour xool lan la boo publier ab publication ci réseaux sociaux ñu bari muy Facebook di WhatsApp wala yeneen euh, réseau yi bu mu ci mënti doon la personne de Ousmane ko day jaay. ba ci télévision bu nee la moom lañ invité wala mooy def live wala mooy lii c'est un bon client parce que képp kuy wane rek ki koy seetaan la bëgg te ki lay permettre ñu lay seetaan ko client bu baax la ci yow looloo tax balaa may dikk ci communication ak ni ci gars yi di waxeek yooyu damay dikk ci client bi mu doon tey rek ñi ngi doon def conférence de presse nguur gi di ko def secretaire général du gouvernement ministre du des finance di waxtaanee li jëm ci njëgu dund gi nan lay def ba wàññi ko ñi annoncé ay prix yi bees ginnaaw julli gi ñu fa yéene conseil national de la consommation bu waxtaanee ba noppi ñu fixé les prix mais tey bi ñuy annoncé ndaje mi lan lan wax Ousmane Sonko mooy daje ak taskatu xabaar yi pour njëgu dund gi bari na ñu fa dem annonce bi ñu annoncé Ousmane Sonko moo tax ñu dem fa. bari na ay scènes yu ko live annonce bi annonce Ousmane Sonko moo tax ñu dem fa kon waa ji c'est un bon client kon press bi waruñu am problème ak kii ñoom dana war a jàpp ni kii client la boo xam ne day doxal suñu ji nga Abdoulaye Wade meloon na noonu ci jamono Idrissa Seck sax meloon na noonu mais amuñu envergure Ousmane Sonko Ousmane moom dafa jógati mbir yi côté communication côté presse boo xoolee la presse digitale bi ko jox gëdd. maanaam mooy ñu nekk ci réseaux sociaux yi boo xoolee bari na ci ñoo xam ne ginnaaw yàlla bi Ousmane Sonko di nekk opposition mos naa sam benn waay ma ne ko Ousmane Sonko ah man de bëggoon naa mu faloo mënuma lu tax ma ne ko koo xam ne opposant la mbir yi di dox koo koy bu faloo mbir yi gën a dox maanaam wërsëgam tool na noonu nekk na opposant ñiy dund ci dara jaam ñuy dund ci dara jaam mais dem tey jii kooku dem ba nekk au pouvoir ñu wéy di dund ci dara jaam kon kooku. nit la koo xam ne ci côté communication dafa apporté lu bees nga nangu ko nga bañ ko man nag waxuma ci li mu wax baax na li mu wax nañ ci ànd li mu wax bu ko kenn dindi parce nag du yàlla du yonent bi nit kase la day juum ah dafay am imperfection yooyu affaire nit la mais ki mu doon moom ku am solo la beneen bi ci topp da ngay jàngat Ousmane Sonko ci côté communication li gars yi soxla la leen jox. xam ne des fois li gars yi soxla la leen jox parce que kuréel bi muy taxaw grand théâtre Ousmane Sonko mënoon na ñëw rek wax ci conseil national de la jeunesse wax ci vacances citoyennes yi wax ak jeune passé fii na leen ni leen war a doxeek set setal mbedd mi mais loolu presse bi information la mais presse bi soxlawul yooyu aussi parce que le train qui arrive à l'heure intéresse wu la presse bu ñëwoon wax ba mu jeex tuddul presse bi sànniwu leen xeer du neex bu ñëwoon wax ba mu jeex tuddul magistrat yi du neex bu ñëwoon wax ba mu jeex tuddul opposition bi du neex loolu tax des fois sax mu raaye leen ne sama gars yi dégg naa demoon nan nan dañuy manifester waaye bi daggee benn naan grenade lacrymogène rek def ko ñeenti yoon bi lañ ko dóor ñoom ñëpp a soj tëdd xam ne yooyu dafa neex pour presse parce que luy jaay la kon Ousmane Sonko presse bi waroon nañ sax di ko jox addiye ci côté communication parce que nag bari na fi tey jii chaîne yi man dégg naa Ibrahima li sa fay wax ko et mooy depuis Ousmane Seck nekk au pouvoir am na chaîne yoo xam ne peut-être boo amul feem amoo ay borom xam-xam amoo nay tëddee na sa vie doon yéegee ak say abonnement day wàññeeku. parce que des fois nga seetaan ñenn ñi xam ne amuñu matière ba ci rajo yi ak kii parce que man li may suivre rajo yi day bari di seetaan ñenn télé yi di lii mais am na ñoo xam ne Ousmane Sonko di def actualité moo doon doxal seeni mbir ñoonte dëgg kon ku mel noonu tey. client la bu baax ci presse parce que li nga soxla la lay jox mooy mbir yi da koy yëngal bu bëggee mu yëngatu mu yëngatu bu ko bëggee mu seet mu seet xoolal jamono ji mu noppee fexe nañ sax di ko waxloo fexe nañ sax di ko waxloo daje ne ak Jean-Louis Mélenchon wax waxam ba wax ja daanu mais gars yi pour am matière pour mën a dundal sax seen liggéey mais dangay sentir ni wax ji sax dañ koy waxloo sax lu mu waxul pour mën seen mbir dox wala ñu créer polémique bu inutile ci ay waxam pour seen mbir di dox léegi nag Ousmane Sonko tamit des fois day mel na loolu la nand moom moom des fois man bu bëggee seetaan dama ne Ousmane Sonko yi muy def yëpp moo ko tey deko na yi muy def des fois mu dóor benn xeer des fois mu pànk pànklu yaa ngi gis dem ba na xale yi mais est-ce que xam ngeen ni yéen a mën yéen a ëpp doole léegi nag wax jooju xamul lan nga ci jàngat mooy ginnaaw ñu nekk au pouvoir gars yi ne duñ ko may état de grace mais dafa am ñenn ñoo xam ne danoo jàppoon ne ñoom ñooy peuple bi ñoom ñooy peuple bi mooy presse bi da ngay gis ñuy wax ñu naan peuple bi ban peuple la presse bi doon waxal nga dégg société civile peuple bi ban peuple lañ doon waxal léegi nag ñu bëgg a créer benn situation mooy Ousmane Sonko peuple bi war nañ ko ginnaaw parce que la mu waxoon ci dund gi defu ko la mu waxoon ci lii def ko lii nii Ousmane Sonko ne ne ma naari naari naar yaa ngi def un coup de com' di nga woote boobu li ci gën a ëpp solo pour man wax ji am na solo polémique yi nga ko wax mais mbooloo mi mooy démb ki ma dalaloon usman saw bokk ci organisateurs yi ci solution TV mi ngi koy wax nee na benn ci une semaine lañ togg lépp une semaine lañ togg lépp jël esplanade bu grand théâtre mënoon nañ jël saalu grand théâtre bi mais esplanade bi esplanade bi du ku ne moo koy song du ñëpp ko attan ndaxte day suul ndaanaan est-ce que ab politicien mus na woote sax esplanade bu Grand Théâtre wóoruma ah bu amee tamit wóoruma parce que esplanade bi day suul ndaanaan mun nga fa woote affaire yi yaraax parce que enjeu bi parce que boo demee au pouvoir am na ñoo xam ne Sénégal mun na la gunge mais duñ egg boo xasee ba nekk pouvoir am na ñu la daan xeexle en tant que du la xeexleeti loolu sa normal am na ñoo xam ne boo wootee duñ demati. am na ñoo xam ne boo nee kaa ñu cotiser duñ cotiser ti te démb Ousmane dëggal na ko parce que nee na pour mobiliser woon ay fonds pour organiser ndaje mi sax problème la woon parce que am na ñoo xam ne dan naan la xeex na nag dans l'opposition mais bu ndee ba nekk au pouvoir ñun nag mënatu yëkkati suñ affaire nit la quoi xeex la naa la dans l'opposition dans les périodes de braise mais nag boo nekkee au pouvoir nag du dañuy jàpp ne yaa ngeeg lu ne te Sénégal xamuñu dimbali koo xam ne danoo yaakaar dafa am parce que dañoo tàmmal ni nguur ku ci ne da war a am alal nguur ku ci ne danga war a nguuru loolu tax ci biir waxi Ousmane ko mi ngi mel ne kii tontu ñooñu nan leen man sama salaire u maire ak député sax mosuma ko soxla waaye sama salaire nguur gi sax dama ko yéene bokk ak yéen maanaam mi ngi tontu ñooñu pour wala leen ñëwuñu pour nguuru mais on est venu pour travailler yàlla dogal Sénégal du jouer Sénégal du jouer 16 ak nin mel ci équipe nationale man mi di wax ak yow. mën na am bu équipe nationale séewul woon damay dem parce que dem naa sax ba ne affaire bi 18 heures la nga ko doon def match match bi jeex pour que ñenn mën a dem seetaani quoi pour mën a xam lan moo xew mais comme dama bëgg football match bi dalay téye ak jouru dimanche ak yooyu yooyu yëpp am ci mais teewul la boo xoolee bi ndaje mi jeexee presse ji nga presse bu manifestation wala ndaje musaana am bu jeexee xam lan lay njëkk xayma. est-ce que mobiliser nañ wala mobiliser wul mais foofu comme yenn gars yi mënuñu fa wax dara parce que xam na ni la mobilisation et exceptionnelle waxuñu ci dara ñu xam ne lii ne mais tey jii bu xawoon a am benn flop rek ñu ne non Ousmane Sonko booy wan nañ ko ginnaaw ginnaaw bi mu eggee au pouvoir loolu tax boo xoolee la mobilisation mais pour wan tamit ni ba tey ji ndaw yee ko gunge woon ci projet bi ñu ngi wéy di ànd ak moom ci projet bi. boo ko xoolee waxam yépp mooy nan accompagner la projet mais fexe ba projet bi déroulé foofu nan la wax ji amee solo man ay waxi presse ak magistrat ak même société civile bi jën génnee sax di tontu Ousmane Sonko da ngay sentir ni Ousmane waxu leen dara ñoom société civile bi mais des fois Sénégal dañuy defee noonu di nga même ñun ñii tey di def presse nii dangay ngay dégg ku ne la waaye lu tax yéen Ousmane Sonko nekk au pouvoir pourtant da ngeen doon wax lay Macky Sall li ngeen lu doon lii Macky sàll Ousmane Sonko def lépp di la pousser ci loolu alors que Macky a fait douze ans Ousmane Sonko a a deux mois ak Diomaye alors que Ousmane Sonko ñoom nan xam ne il n'est président de la République du Sénégal pourquoi il ne cite pas Diomaye pourquoi ñoom duñ tudd Diomaye parce que nag Diomaye lan dénk réew mi tey ji Ousmane Sonko ab premier ministre la te bi muy ñëw ci ndaje mi sax peut-être que dans son discours rek wax na fa waxi premier ministre boo waxee Israël wax ci yeneen domaines yi. kon kooku c'est le premier ministre qui parle wax ci diplomatie wax ci pétrole wax les ressources c'est pas le leader de ci qui parle peut-être bi mu ñëwee ci vacances citoyennes yi wax ci yeneen domaines yi wax ci parti bi ak ni ñu war a gunge le projet foofu c'est l'homme politique qui parle loolu tax aussi tamit gars yi amoon problème ci ni kan mooy wax waaye mii premier ministre bi di secret di président parti bi ñoom ñëpp dañuy dajee ci benn jëmm mooy Ousmane Sonko mooy Ousmane Sonko il faut que des fois ñi jàngat loolu société civile bi génn xam nga lu tax ñu génn pour man ay Birahim Seck ay diw ak diw ay Mandiaye Seck seen génn yëpp leen moo ko waral mooy ba nguur gi faloog léegi amuñu lu ñu wax loolu la korog ma ni Ousmane Sonko gars yi dañoo bëggoon wax moom may leen lu ñu wax même gars yi bi ñu génnee sax da ngay sentir ni amuñu woon lu ñu wax parce que bu naan presse bi nii presse bi ne mais aussi ak loo doon doon presse aussi tamit il faut être responsable que lépp loo xam ne intérêt Sénégal la parce que aussi tamit bu dee da nga ne parce que le journaliste ñu wante dëgg mi man di keneen ak keneen intérêt mooy journaliste di traiter information mais aussi di critiquer parce que loolu parce que jour parce que du munoo fi nekk comme nekkoon journaliste RTS ci njëkk yi rek nooy na neex na lépp a dagan loolu du liggéey journal journal day am ay critique gis loo xam ne mu jàngat mais nga jàngat ak objectivité mais nag boo dee wax xamewuñu journaliste bi xamuñu politicien bi wala sa patron de presse bi la jiite nekk ab leader parti politique wala muy politique di làqu ci ginnaaw journaliste yi léegi yoratul maison de presse yor maison de pression mais kooku il faut ñoo xam moom loolu tax bi Ousmane ko waxee ma ni masque yi daanu na parce que génn gis nañ ñenn ñi génn di ko tontu ñenn ñi génn di ko tontu ñi génn di wax nag bul mbubboo journaliste nan na ñun ay politiciens la bu bëggee am jàmm mais nag bëgga a ci ginnaaw seeni journaliste aussi di def un politique boo xam ne wala un travail mais bu yo bu boobaa gars yi da leen di traité politiquement da leen di traité politiquement parce que Ousmane Sonko avant mi génn mais Ousmane sonk def na fi ndaje ak Jean-Louis Mélenchon am na journal boo xam ne xam nu mu ko tuddee ndajeb góor jigéen yi gay prat noonu lu tuddoon maanaam loolu rek waroon nañ ci woo journal boobu maanaam góor jigéen ñi ñoo dajewoon ci université noonu la ko traité xam ne kooku ñi ngi daan baa jaxate mais parce que il est journaliste moo tax kenn woowu ko mais lan la gënee Bah Diakhaté ba li Bah Diakhaté wax moom mu bind ko assumé ko deful sax conditionnel wala interrogation mais moom dafa nen ndajëb góor jigéen moo amoon maanaam fexe na ba képp ku woon ca université rek mu traité la comme góor jigéen mais journal boobu da leen waroon a pour pourtant nit ñi dañ ko feneeti rek bàyyi mu jàll loolu du liggéey journaliste nga gis ku taxaw di traité Ousmane Sonko naan ko comme Jean Collin quoi Jean Collin nga xam Jean Collin ak ñi ko xam di la nettali Jean Collin ak doxin wu mu doon doxee ci nguuru Abdou Diouf Ousmane Sonko nekk un panafricain nekk un souverainiste nekk koo xam ne tey jii maanaam moo Jean Collin yàlla ak yàlla nga traité Ousmane Sonko comme Jean Collin loolu loolu lu muy nuru ci koo xam ne day jóg jot ci pouvoir. Ousmane Sonko même boo ko doon traité comme un dictateur da koy traité comme sax les figures emblématiques yu nekkoon en Afrique wala ñenn mais nga koy traité comme un Jean Collin loolu tooñ la te yooyu yëpp la fi am yooyu yëpp mu muñ ko léegi nag ñi naan tontukat dëgg-dëgg mooy koo xam day dajale Ousmane Sonko dafa boole tontu bi ko xas bi ko ma sàmba xas ma demba ma paate ma muudu mu dajale yëpp ci benn bis woo mbooloom. di dóor nag dóor na ba dóor ay coup perdu nag parce que am na wax yu mu wax man pour man mënoon na ko bañ a wax mais wax bu wax nag day joxe sarax joxe asaka loolu mooy communication parce que man dama naan du ma yàlla du ma yonent bi du ma xutbu ba bu ma waxee lépp jub mu waxee lépp neex ñëpp dans la communication nit moom loolu da ciy am loo mën a wax wax ji bun pare wala dégg ni sax wute. yow mën nga di waxee fii ma sàmb déggee fee te gars yi fi ñu bëgg a déggee la ñuy déggee loolu la dóor na ba dóor ay coup perdu moom Ousmane Sonko léegi nag loolu lépp lu mu waajaloon la parce que même bi muy wax Ousmane Sonko mooy koo xam ne bii wax il faut nit ñi jàngal ni li ko war a fekk ci wax ji yëpp xam na ko li ko war a fekk ci wax ji xam na ko loolu daal yu bari di ko bett réaction yi gars yi am yu bari di ko bett seetloo. li li lay wan ne Ousmane Sonko dafa mën communication communication ki ko tële dëgg-dëgg mooy koo xam ne day wax ci jotaay ba jotaay ba jeex maanaam balaa mi pare nit ñi di ñibbi loolu da koy gis des fois nga gis kii wax lu am solo nit ñi di nalaw wala mi wax lu am solo nit ñi di ñibbi mu jékki-jékki rek jotaay bi wét gis naa mu dal fi Amadou Ba ci yenn jotaay bi mu nekk premier ministre. maanaam moment bi muy discours moment boobu fekk na nit ñi di ñibbi gis naa ay kilifa yu bari yu mu fi dal te loolu télécommunication la loolu nag communication da ngay desal seetlu woo bi muy tëñ ndaje mi moom Ousmane Sonko waaju ko dafa jékki-jékki rek na leen nag léegi nag nekkatuma opposition maa ngi pouvoir te suba demee liggéeyi na leen asalaamaaleykum wa rahmatullah dem boobu gars yi doylu gars yi naan ko doyul de loolu comme la communication la le fait que wax ji di des. le fekk que mais fekk bu nit ñi commencé di quitter di doyal rek ça veut mi ngi yàq sa communication même bu dee li nga am na njariñ kon ma ni Ousmane Sonko coup de com la doon def pour wan aussi la communauté internationale addina bi na leen ni maa ngi fi li fi nekkoon mi ngi fi mbooloo ma ma toppoon ba ma falu tey jii leen ma gën a gëm tey jii leen gën a gëm projet bi tey jii leen gën a gëm ni Sénégal gi ñoo koy ànd defar léegi nag mu passé une communication mooy ñun kat falu nan wax na ak ay ndawam na leen justice bi ñëpp la fi nekkal wax na ak ñiñ fal bees mooy képp ku fi sàcc dara da lay duma wax na ak ma Samba wax na ak ma Demba loolu nag yóbbante galgal la bu Ousmane Sonko dugal loolu da gaa yi foog ni mën na nekk ci réew mi lappi-lappi bu doon man maay ñoom dina uti ñaan wala ñu teey man gëm naa ni Ousmane Sonko daa am lu mu doon annoncé waaye ñu bëri dégguñu ko la leen neex rek lañ tànn ci wax képp ku fi foboon alal réew mi na ko delloo si gaaw bu dul loolu yoon dina dal sa kaw parce que boo nee samay nit sax bu nu sàccee mu yóbbu leen ci yoon ñi dul say nit te sàcc nag te yow say nit sàccaguñu mais ñi sàcc fan nga leen jëme fan nga leen jëme loolu dafa lañ jàngat loolu tax gars yi ku ci muusoon war nga tiit beneen bu ci topp mu wax jëme ci projet bi ak li mu sumb boobu Ousmane Sonko chef du gouvernement la xamoon na ni pétrole bi day génn xamoon na ni Sénégal contrat yi dinañ ko xoolaat xamoon na ni Sénégal dinañ ko teg ay bët ci àddina bi léegi muy waajal yi ci ne liñ jëm du man Ousmane maa ko mën du man demba maa ko mën du Jomaay moo ko mën mais il faut que sénégalais yëpp jàpp ci parce que les changes son énormes maanaam enjeux yi danoo énorme surtout pétrole bii nii balaa sénégalais di ci lekk dërëm bu jëm seen poos parce que fekk nañ fi ay bor dinañ ko ci fay li lay wan ni pétrole bi moomuñu lépp Assane messere lay leeral pétrole moomuñu lépp gis naa nag waa boor bële daggu euh, daggu Assane ci ci TikTok bi collègue ak Ousmane ko ñu naan ana ñu ne woon pétrole bi amul naan nan ko wala liy kërëb kërëb mais est-ce que xam nga ni xaalis pétrole bi ful laay tax ñun ñu jot ci lan lan waxoon. 10 pour cent lañ ci am après ñu négocié waat ba ne 18 pour cent lu tax man la pétrole bi moo ma gun lépp bis bi ne pétrole saññe kan moonu ko annoncé maanaam communiqué congé bi génn pour yëgal ni le 11 bi pétrole am na Sénégal ba première bari li génn kan moonu ko annoncé tubaab bi ko exploité ànd ci ak Petrosen def un communiqué conjoint mooy wane ni am nañ ci doole parce que li ëpp ci doole ji li ëpp ci pourcentage ñoo ñoom ñoo ko moom léegi nag pour loolu dañ ba pétrole mun ñu dari ak bor yi parce que am na xaalis bi gën dégg naa ay day dugg ci ay bor parce que bor yi ñu fi gars yi bàyyil léegi ñoom Ousmane Sonko ñëw taxaw ne leen nag lii leen fi fekk mooy réalité bi mais lii pour mu changer il faut que le peuple jug jàpp ci mais te gunge njiit yi parce que lu tax peuple bi am solo ci li gaay sumb yi mooy est-ce que xam bu woon peuple bi Ousmane Sonko du doon premier ministre Diomaye du fallu mais bis bi ñu demee ba tubaab yi sentir ni le peuple sénégalais ji nga tubaab il intelligent tey ji Assimi Goïta Mali pourquoi ñu mën ko fa bàyyi kenn song ko peuple malien ñoo ànd ak moom rek peuple malien dong ñu ànd ak moom nga dem ci meneen réew Burkina Ibrahima Traoré le peuple malien moo ànd ak moom rek naam danoo jot pouvoir bi ci noo xam ne du yoon parce que coup d'état la mais lu tax ñoom ñu légitime ba mën a jiite rek seen peuple moo ànd ak ñoom niñ jotee ci pouvoir baaxul waaye nag gënal na askan wañ jiite fekk peuple bi man waxuma ci ay dem élection wooteel ma Samba ak ma dem loolu les gens sont libres wooteel leen neex tànn ki leen neex ndaxte opposition dafa baax ci réew mais daa am foo xam ne bu ñu fa tolloo nañ jël politique teg fa fële bu ñu bëggee mel ni Dubaï wala mu mel ni Qatar te loolu li ñu koy may mooy ñu gunge suñuy autorité mooy bi jomaay di daje xale ya jigoon Pikine ñoo taxaw mun leen pétrole bi ëllëg da leen ci bëgg defal li defal leen ci li defal leen ci li mën na am sax du pour ñun ñii mais pour nos enfants mais pour nos aussi petits enfants suñuy sët léegi ñun nan na accepter nekk la génération sacrifiée parce que tombé moo waral ay gaaf pétrole mënoon na fi feeñ xam na or feeñ na fi am ñu am fu mu feeñee woon or bi lan lañ jariñ pétrole bi bi muy feeñ am na fu mu feeñee waaye tey jii bi teen bi di bënn daa am fu mu bënnee ci ñoo xam ne dana patriotisme wax panafricain wax souverainisme wax ni ñun boddiwuñu kenn waaye suñu bopp moo ñu gënal te wolof nee na sama bopp ma la gënal du bañ naa la wax ni lépp loo xam ne dugg na ci réew mi doon gàncax wala gànjar goo xam ne feññ ci réew mi waa réew mi ñoo koy bokk njëkke nañ ko ci géej gi njëkke ko ci leneen ak leneen mbay mi ak programme ñu ci tëral ci leneen ak leneen ba tey ji pétrole bi ñëw ñu ne gaz bi mu ñëw ci kanam mais ki la jox añ jox la reer jox la ndékki bu la jigéen leneen nga gëm ko kon dafa am ay question yoo xam ne question d'intérêt général la kenn du ko politiquer kenn du ko lii da ngay nekk ci ginnaaw réew parce que nag bu dee day jariñ day jariñ ñëpp waaye bu yàqoo yàqal ñëpp parce que nag gis nañ fi ay pays africains yoo xam ne tey man bi ma yëgee ni li Niger am ci pétrole Niger gii Niger gii xam ne ñetti nit yoo gis fii ñu tàllal loxo ay nigérien lan réew moo xam ne dafa ñàkk comme c'est possible ñu ni la Niger mais li mu am ci pétrole sax est-ce que Sénégal am na ko Niger waxuma Nigéria de parce que Nigéria mi ngi OPEP mais ñun la Niger mais loolu lu ko indi ay dirigeants yi bon ay dirigeants yi gëmul seen bopp ay dirigeants yi doon jaamu tubaab yi tubaab yi ñoo wër pétrole bi ba gis ko ñoo koy jaay waaye li ci suñu wàll nañ ko jël te li ci sunu am na ñu ne waxuma la sax petrole bi nuy jaay ñun ak li ñu ci war a am mais taxes yi rek taxes yi sax buñ ko joxee normalement taxes yi ñu war a fay buñ ko fayee normalement sax Sénégal gis ci boppam mais yooyu fa la daan jaar fa la daan jëm lu dul ay njiit yi bañ seen réew léegi na mu doonoon une occasion pour Ousmane Sonko mu wax le peuple sénégalais jug leen. lii du mën ak jomaay kese yéen ci ngeen dem ba dugal ci bopp booy na leen feeg 25 ans président mën na génnee ci jotaay bi ndaxte feeg 25 ans mënatuma ko du ma ko mën. dégg nga wax ji mi ngi naan foofu man li ma fay déggee mooy pétrole bi yéen a koy jariñoo ak gaz bi mais pour ngeen mën ko jariñoo ak gaz bi mais il faut ngeen jàppale ñu ba nanguwaat lépp teg ko ci loxo sénégalais yi parce que nag en 2016 lan lañ wax ci référendum bi mais les ressources naturelles appartiennent au peuple gox bu ne. la fay meññee di fa génnee mais waa gox ba ñoo fa moom kon bu ñu koy séddale ñoo ci war a ëppale mais da ngay gis fu mel ne Kédougou ñu toog ci or ba noppi di wër or démb rek ki ñu dalaloon tàkku sow gox yoo xam ne la fa ne ci àddina ci wàllu mbay ci wàllu ressource naturelle lépp day jéggi waa réew ma mais ñuy déndu pauvreté boo xam ne doo xam nan la toll loolu nag il est temps que mu jeex il est que mu jeex te loolu dañ ci yaakaar ñii yaakaar ci yàlla mais aussi yaakaar ci le peuple parce que nag doole yëpp peuple la de Ousmane Sonko loolu la xam de boo gisee mu mën a jël yenn journalistes yi ne leen toog leen toog leen xaar ne mën a jël yenn kilifa yi na leen toog leen xaar ne dafa xam ne volonté peuple bi seul le peuple est souverain bu feeg mi ngi am peuple bi mën na gouverner Paul Kagame boo gisee mu yàpp tubaab bi ba lu ko neex def loo leen. peuple rwandais yi rek ñoo nekk ci ginnaawam du dara mais du jëmmi benn Kagame benn lam du jëngu léegi il est temps que peuple bi jug ñu taxaw peuple boobu la nag daa am lu ñuy xaar ci moom mooy li américain di wax bul xaar rek li la réew mi sa réew di defal mais yow lan nga defal sa réew loolu c'est important parce que da dégg ñu ni la dund gi dafa war a wàññeeku wala dund gi wàññeeku na bu ne la ceeb bi ñu ni la li ci wàññeeku 40 francs yi da nga ko xeeb ñu ni la suukar si da ko xeeb ñu ni la mburu mi ñetti dërëm da nga ko xeeb ki lay wax loolu est-ce que mi ngi fay impôt yow journaliste bi yow yaay toog di chronique di def say débat nan non danoo war a wàññi dund gi danoo war a wàññi dund gi tey ji ministre bi ak la secrétaire général du gouvernement wax na ko mooy pour nag nguur gi mën a doxal il faut que nit ñi di participer nan la ñuy participer mooy dañuy fay impôt képp ku ko roy fay fay ko mais exonération ak am fiscale dañ fur a jëlee noonu nag ñu ko waxee ñoom Ousmane Sonko nii man foofu laay dikk ci ñoom man pare naa pour fay impôt képp ko war fay na nga fay parce que réew noonu lay doxee mënoo di jariñoo réew mi te doo jariñ réew mi dara waaye nag bugguma ñi laaj impo sénégalais yi di ko baal tubaab yi parce que nag yooyaa fi doon am di exonérer tubaab di defal ay amnistie bari na fi entreprise tubaab yi nekk fii ci réew mi sénégalais gañewuñ ci dara noonu la daan doxee tey jii entreprise étrangère yi nekk ci réew mi bu ñu doon fay impôt sénégalais sax soxloon fay impôt billaahi entreprise tubaab bi mun na nañu dundal mais lu bari dal leen ko doon baal parce que nee na danoo ñëw investir danoo ñëw di jël suñu nit te investissement ak suñu nit yu ñuy jël yëpp esclavage moderne la du contrat yu baax du salaire bu baax du dara teg ci li gën a métti ci liggéey bi ñu dénk ko nit ñu ñuul ñi li gën a yomb ci liggéey bi ñu dénk ko seen nit loola fi amoon kon ñi fi ñëw doon ay doxandeem may ñu mais danoo ñëw du ñu jariñ ñu leen di jariñ ñun danoo yor environnement boo xam ne réew yëpp ñu soxla ci àddina am na lépp am nañ géej am na ndox am na suuf su baax. am na naaj am na ñu lépp tubaab yee ñu soxla kon tey jii képp kuy ñëw sunu réew na nga sàmmoon teg saati réew mi loolu daf fulla gi ñuy wane ci sénégalais yi nan fay impo mais fulla jooj nan ko wane ci doxandéem yi nekk bitim réew bu may wax dikkandéem nag waxuma ñu xees ñi kase parce que nag est-ce que xam nga ni tubaab yi xees yi tubaab yi ñuul yi ñoo leen gën a bon seeni représentant la ñu am fii ñoo xam ne bëgguñu seeni réew ci ay commission rek la ñuy dund ak ay deal ñooñu aussi na leen surveiller comme di lait sur le feu looloo tax tey jii liy doxal réew mi ñëpp dañ ci am wàll léegi nag du tee presse bi def liggéeyam presque parce que bu presse bi liggéeyul woon mun na am tey jii dund gi wàññeekoogul mais la fekk que sànni xeer di di nga nag naan dafa war a wàññeeku dafa war a lii lan lan doon xaar benn moment c'est le travail de la presse des fois il faut secouer le cocotier parce que garab des fois boo bëggee dara du rot da nga koy gësam loolu tax presse bi fi mu war a taxaw la parce que le train qui arrive à l'heure nag mu leen intéressé nekk fi naan parce que gouvernement bi aussi am nañu RTS am na la porte-parole du gouvernement am na ceci ou cela loolu yëpp aussi tamit nañ ci taxaw mais ñu def ko avec beaucoup de responsabilité opposition bi war a opposé opposé ci jàmm ak salaam di ko teg ci yoon bañ a mbubboo presse bi di opposé nan wane seen bopp ni ay opposant bu boobaa ñu leen di traité politiquement Sénégal bu waree jëm kanam ku ne da ci jàpp ku ne wet ga nga nekkee nga dee fa la ma góor ga doon wax naan àdduna kenn attanul dara ab yan bu diisee daal len mooy tax mu oyof mooy ku ne jàpp fa nga war a jàpp bu yàggee mu oyof di jégalu ñëpp di gërëm ñëpp di leen euh, sant di ñaana ñëpp jàmm di gërëm Ablaye Diallo Abdou Topp di ñaan solution suñu borom def ci xewal defal ñu jàmm defal ñu sutura gu bari ba solution macha allah mbir yi gën a dox gën a neex di di gërëm Sa Ndiogou gis na mbir yi c'est merci beaucoup. waaw ah, merci c'est un petit mot waaye nag baat bu am solo ku deful dara du ko dégg merci beaucoup solution Sandiogou son yi boog ñëpp ñu ngi leen di ñaanal suñu yàlla borom bi defal ñu jàmm ak sutura mbokk yi jërë ngeen jëf.